ba tudd sëriñ Baara. Mm-hmm. te ku tudd Serigne Baara tudd seexul Khadim. Mm-hmm. nga gis ni kon maam Cheikh Ibrahima Fall yaatu na foo dugg ci këru diine yeeg lislaam bi rek fekk ko fa. Mm-hmm. man nag sama question dama dégg ci benn mag mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy dajeeg seexul Khadim booba kàngam la woon ci xam-xam. maanaam lu nitu yàlla di jàng rek pour xam ko booba maam Cheikh Ibrahima Fall jàng na ko. mais li tax mu denc njàngam teg ko fële. Hmm. gis Cheikhul Khadim mu jommal ko. Hmm. lan la ko sëriñ Touba wan ba tax maam Cheikh Ibrahima Fall teg lépp topp Cheikhul Khadim. Hmm. cofeel googu digganteem ak seexul xadim lu waral loolu. Serigne Touba wënu ko dara. ndax kee wan dara da nga jàkkaarloog moom musaafahatan ni may wax ak nii laata Cheikh Ibra di ñëw ci sëriñ Touba. Mamor Anta Sali xaama sasin la la wàccu liggéey muy 1880 ñii ne 81 sëñ bi ci biir nekk wajuram laa yuqiimu wala yaquumu taxawul taxawalul dara bal huwa tawhu abihi kal mayit kal mayiti bayna yaday xaasilihi sëñ bi dafa ne ci diggante loxoy ñaari waajuram ni ki ab néew rek mhm. buñ koy sang mom duñ fi nga may walbati jëme wala ni nga may walbati jëme waye bimu démé nak ba wajuram nelaw señ bi yor daara ji at ak juróom ben wër irwa na di moko netali sanatan wa ziyada señ bi mo xey taxaw ci dig daaram di dong yep ñew muni ala man kana sahibana li taallumi fal li nafsihi wal ya'wi li jinsihi fal yëthab shaa képp ko andon ak man ci ci jàng. Mm-hmm. xolaatal sa bop delu ci saw askan wala nga dem fa la soob. bis ni ki tay waman arada ma aradna fal yasir bi sayrina <laughs> ku bëgg lima bëgg. waaw. est-ce que. ci sama doxine dako wax rek waxul li bëgg lan la de. Mm-hmm. sum man fatala dakhilan la wax dako wax fatu. fa awxaxa kalaamuhu al ashaabu fil muqimil muqaxat mhm. wax ji dugg leen ci toogloo leen ak demloo leen fattarabu itiraban shadidan bayna man yan sarifu wa ma yabqa maahu mu yemale la waaw mhm. am na ñoo xam ni dañoo dañoo dañoo bi sëñ bi waxee loolu mhm. am na ñoo xam ne dañoo dem ku dem nag daara day amu maas ku jaay jaay ci daara xam nga ni xam ni am na ñoo xam ni day day mel yàlla leen boole. dañuy xaritoo ci daara ji. ku ne nag booy dem da nga yóbbaale sa xarit. koy am na koo xam ne buy toog di toogaale ba xaritam. Mm-hmm. waaye sëñ bi waxul dara dana ci yàlla. ñëpp di ko diglu. Mm-hmm. fekk booba Cheikh Ibra moom ma nga njare di xaw dee. ndax daana def. Bim jangé xam-xam ba am ko di jaamu ko te yalla bu maga mag ci digënté ak boromam daan def su taxawé guddi dina fa suñu allahu akbar mboolem waliwu nek Sénégal suñu borom dana jël wilayatom sëmp ko ci kanamam. Mhm. koko amono dara. Mhm. motax tax ma la tëddul di nelaw ba xey doon lim doon. te bobu gisante gisante gol ak sëriñ. dedet bim démé ba ba ba ba boromam feñ ko. Mhm. ak mu ko mëna feñé lolu alcorane xam ngeen ni ku jàng alcorane xam ngeen ni lolu du jafé jafé alif laam raa tilka ayatul kitaabil hakim waaw ak kaana lin naasi hajaban an awayna ila rajulin minhum dëgg la de anan serit naasa wa basiril lazina amanu anna lahum xadama sidqin inda rabbihim waaye xaalal kaafiruuna inna haza la sirrun mubin wallahi ñu weddi xaalal kaafiruun inna haza la sirrun mubin wallahi saa yu dëgg feeñee rek faaw am ñu ci àndul kopp bi boo ko doon jaayee dërëm dana am ñoo xam ne dañu dafa seer am ñu ko amul dërëm waaw dëgg la Al ji ñuy jàng wa isa tutla ayatuna bayinatin xaalal mhm. lazina laa yarjuuna liqaa'anaa i'tu bi qur'aanin xayrin haazaa aw baddilu mhm. qul maa yakuunu lii an ubaddila tilqaa'i nafsii in attabi'u illaa maa yuuhaa ilayya innii mhm. in asaytu rabbii azaaba yawmin aziim saa yoo jàngee ab saa yoo jàngee ab la indi indi beneen soppil alxuraan ji vadis waaw indil bu gën oyof yonente bi ñu leen xul <laughs> maa yakuunu min dëgg la de. man in attabi'u illaa maa yuuhaa ilayya innii axaafu in alayya a azaabin aziim mm-hmm. yàlla ne ko qul law shaa'a allaahu maa talawtuhu alaykum wa laa adraakum bihi. faqad labistu fiikum umuran min doon xale bu ndaw ma bind mënumaa jàng xawma dara su ma dikkee di wax léegi war xam ne xanaa am na fu ma ko jëlee. am na lu xew war nañu xam ne am na lu xew. Hmm? est waaye wa in yakaadu wa in yakaadu lazina kafaru la yasluqunaka bi absaarihim lammaa sami'uu zikra wa yaquuluuna innahu la majnuun moo tax sëñ Tuubaa waxoon ne xaaloo safihun li sarfi xanhumu basari xam nga ba mu waxee dañu da ngaa dof kon dof mënut a ñàkk waaye Seex Ibra bi mu àggee ci boromam boromam da koo joxoñ ne ko demal ci Ahmadu mu indi la ci man wóor ci kenn nag kon euh, maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall Sidi Birahim hmm? bi muy ñëw ci sëriñ bi nekk na waliyu kaamil nekk na waliyu ba àgg ca boromam te jàng na fànn xam-xam yëpp waaw suñu borom ni ko li may waxtu wu ne li may def ci kenn laa koy def dem ci demal ci moom mën la ci man te boobu mosu koo gis mosu koo gis waaye wër ba ak la ca xew wër ba waaw wër ba hmm? kon yàlla moo ko orienté ci Cheikhul Khadim moo ko orienté ci Cheikhul Khadim te boo ko ci orienté bu accès ah. Cheikh Ibra la mu def ba àgg ci yàlla kon loolu xanaa doo koy bàyyi moom jël leneen dëgg la de. boo àggee Màkka ni ni jàkkaarloo Kaaba ga. Mhm. ndax foofu am na penku. déedéet nuñ koy def. ñëpp Kaaba gi rek. Kaaba gi rek. te pourtant avant Kaaba gi di wàcc. avant xeble gi di wàcc foofa. sa yaqulu sufahaa'u sa ci fi mu ne mu daal lay dugg. dëgg waaw. te daf koy dëgëral. Mhm. السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يلا نكو قل الله المشرق والمغرب يهدي ما يزعل الله المستقيم واي سو ما سانا جولي بنك محمد صلى الله عليه وسلم سي يهود ديكو خاص امو قبلة دا يف ني اسمان دي نيان قد نرى تخلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترداها كن فولي وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم kon bi mu xësee jàkkaarloog kaaba gi jëratul nga wut penku dañ koy wut di julli moo tax Cheikh Ibra bu jàkkaarloog Serigne Touba mu def leneen lu kenn mos a gis est bi ngeen am fii waa TFM mhm. est-ce que yi ngeen seen seen décoration yi ci la bokk mu ngi ci licence ba déedéet yàlla bu ni muy defee lu bari da koy sànni fii ci àdduna mu xaw a nuróog moom mhm. moo tax bu la ko joxee yow nag yaay xool ku la wasal rek la wax moo wax ni ngeen boole yii déedéet. nañ boole ceeb ak jën waxu ko. déedéet waxu ko bu rek la wax. nañ boole yàpp ak ceeb waxu ko. déedéet rek la wax. lekk leen naan leen. waaw bu joxee un milliard ngay tabax kër doo la wutal plan. yaa ko sa bopp déedéet. Cheikh nag loolu la ko yàlla wax moo tax mu ñëw wut plan boppam. Allahu akbar. ñëw bëgg a àgg ci boroomam. Mm-hmm. ci. joxogn bu ko boromam joxogn ndax suñu borom lim da joxogn ñi nit ki nit bari wut jango ci soir joxogn nit ki nit dedet dedet wa is ibrahim li abihi azara atattakhisu asnaaman narihatan inni araaka xawmaka fi dalaalin wa kasalika nuri ibrahim malakut samawat wal ard ardi liyakuna minal muuqiniin falammaa janna alayhi laylu raa kawkaban khala hadha rabbi falammaa afala khala xaala laa uhibbul aafiliin falammaa raa xamar bazikhan khala hadha rabbi falammaa afala khala la illa yuhdi rabbi al-aqraan wa qawmi noonu la demee ci ay bidiw lañ ko gindi naa Moussa ci luñ ko gindi ci aw sawar lañ ko gindi. Mm-hmm. inni anasu naaran. la'alli aatikum. bi xabari minha. Mm-hmm. aw jazwatin min annaari la'allakum tastalu. waaw léegi nag mën nga ko topp ku ci ne fom la gindee Cheikh Rafal nag ci nit mi yàlla gën a bëgg la ko gindee. sallallahu alayhi wasallam laata wax yu gi wàcc ci moom bon tur la yoroon di jaam yàlla. Mm-hmm. xanaa doone ma doon julli. déedéet xaadara ma da doon tudd yàlla. déedéet wàccagut ci moom de. déedéet dafa bàyyi këram ba fi nit ñi dem ba ca xaaru xeraa. Mhm. moo fay wéetal boromam. Mhm. xam nga suñu borom deesu ko gis. Mhm. waaye suñu borom dana gis ab gis moom suñu borom moom doo taxaw ci mbenn mi jattu naan anamu déedéet do ko gis Ken du ko gisee noonu waaye jox na nit ñi ay gisukaay yoo xam ne mën nañoo gis seen borom. laa tudrikuhul absaaru la wax. wa huwa yudrikul absaar. borom gis du ko jot. wa huwa yudrikul absaar. wa huwa yudrikul absaara. <laughs> sunu borom mooy jot ab gis. mooy jot ab gis. waaw waaye. waaye gis du ko jot déedéet. boo taalee sa sa télé bi ray mu tàkk nit ki yaa ko fekk si wala moo la fekk si. Hmm? lu mat a bàyyi xel mi ngi noonu. nit ñi nag yëg-yëg yi ñu leen Cheikh di jàngal ba léegi nii mokkalaguñ ko. Mhm. yëg-yëg bi. waaw yëg-yëg boobu ba léegi nii nit ñi xamaguñ boobu yëg-yëg mooy lan. sunu borom ne xad jaakum basaa'iru min rabbikum. ma jox naa leen ay gis gisukaay. fa man absara fa li nafsihi wa man xamiya fa alayha wa ma ana alaykum bi xafis sama ci man ndax jox naa leen ay gisukaay loolu moo tax yonent bi dem xaaru xelaa teelu boromam seen naa jibril fa cëpp fekk ko fa. Mhm. sa borom def na la ab yonant jangal nako am jangal nako nuy jappé jidou ko fa ñaar rak ni sa borom def na la ab yonant mhm. mu genn doje yépp di ko nuyu mu commencé di lox dem fekk soxnaam Khadija sayyidatina Khadija alayhi salam mhm. mu wax ko ko waxé mu ko ci labbe ba mu ne ko namus mi da sét ci Moussa da mo sa ndax ñoom naamusuñ laa Seydina Jibril mm-hmm. moo dikkal sa sa sa sa borom kër bi yàlla def na ko ab yonent mu tëdd di lox naan zammiloo nii zammiloo nii ak dafiroo nii dafiroo nii mm-hmm. suñu borom tëral bor boo déggee mu ni du mm-hmm. mu du ma yónati du ma yónati benn yonent ginnaaw yonent bi loolu ñàkk ñu mu yónni taxul mu wax ko de dafa xam ne dañu nit ñi dañoo dëgër bopp <laughs> est-ce que ndax 124 mille lañ ji ah, mu tànn ci ñaari 300 13 waaw tànnaat ca. 25 tànnaat ca 5 ginaat ca kenn te gëmuñ. gëmuñ. Mhm. kon loolu mooy jafe-jafe bi mu xool nag mu sans mu am nag lu defoon bu yàgg. do doon ko jéem a waaye jàllul muy naa ko leb denc ko fii muy demal ca marajal baxrayni mhm. nga xam ne yaltaxiyaani ñoom baynahuma barzaxun laa yabxiyaani fa wajada xabdan min xibaadina wa aataynaahu rahmatan min indina wa xallamnaahu min ladunaa xilman muy Seydina Xudar ak Moussa alayhi salaatu wasalaam Seydina Xudar ak Moussa ñetti question la ko laaj ñu tàggale ko ndeke waaw ñetti question mhm. mooy man la yàlla bu la joxee milliard nga bëgg a tabax kër sa plan yaa ko sa bopp moo tax Moussa bi mu tëddee ne ma ëpp xam-xam ci àdduna ndax ma ëpp xam-xam suñu borom ko mu ne ko ëpp xam-xam fu mu ne mu ne ko demal ci marajal baax rek ni fi boo demee da nga ko fekkal ëpp xam-xam muy xudar jox ko mandarga yi ba mu ñëwee ba si fekk ko dafa dafa ñëw rek picc mi sof ci géej gi naaw xudar laata muy wax xudar ne ko yow picc mi gis ne li mu sof ci géej gi naaw sama xam-xam ak sa xam-xam ak xam-xamu yàlla mi mel ni picc mi sof ci géej gi naaw te waxagul dara mu ne ko hal tabihu hal antu tuxallima ni maa xalim tarusda mhm. ndax duma la top mhm. nga xamal ma ci li nga xam mu ne ko wa kayfa taswiru tasbiru ma lam tuhim bihi khubra mhm. naka ngay ngay ngay yow yow amu patience lan tastatix maa ngi sabra amu da nga amu patience motax tax li mu bëgg mënoo ci am. da nga yakamti da nga yakamti xudar moko ngi dal musa moko ko moo musa yoon yàlla Moussa da ngaa yàkkamti. te yow naka ngay mën muñu lo xamni xamoko sax. ñu ne accu nañ dem fantalaxa ñetti talaxa la. Mhm. fantalaxa. xataa isaa rakiba. fi safinati xaraqala waaw fa fa lañ commencé. biñ biñ tàmbalee rek xam nga xisa ba la ca xew lépp. Mhm. yéen mi ndax fa mu mën a xaawi ko ci Cheikh Ibrahima Sidi Ibrahima. <laughs> Mhm. ñetti question yam ko laaj. Euh. fa lañ daal di yem. suñu borom ni lii ruwee daal jël dossier boobu rofaat ko ci wàllam. est-ce que waaw ah? dafa war a waxaat ci turaalam ba mujjug jamono nag xam ne am na koo war a ko a xeet li jaam ñi muy sëriñ Touba mii te am na keneen ko war a ànd ak yàlla mas naa yónni kenn te kenn koo xam ne da ci saayir ak ci baatin mm-hmm. amul moo tax nag Cheikh bi mu àggee ci borom suñu borom joxoñ ko joxoñ ko Serigne Touba mu dëppaat te lu yomb gëm la nag. Mm-hmm. ndax Serigne Touba loolu da koo dal. ndax suñ tubaab moom li mu doon wax ci baatin ñun suñ bët teguwu ci woon. Mhm. Cheikh Ibrahima mu ñëw doog ko pratiqué moom. Mhm. ndax suñ tubaab dañuy allahu xalallaahi dalani allahu xalallaahi yàlla moo ma tegtal moo ma tegtal moo ma tegtal yàlla fekk dafa njëkk wax ne dalani yàllaahu ala muhammadin waxaadani muhammad li samadi mm-hmm. waaw bi mu naan ko demal ci yonte mu indi la ci man demal ci diw mu indi la ci man kay ki la ko wax moo la tegtal boppam mm-hmm. demal ci diw mu indi la ci man loolu dalil bu gën a leer daa am fenn mm-hmm. ne ko demal ci diw mu indi la ci man fu jaar fan la jaar ba ñëw ci moom te Cheikh Ibrahima ko demal ci kim un la ci man boobu ñu ngi bokk bokk